moom Karim xaaral naa ko jox yow xanaa dangaa bëgg Karim sëñ bi ah, Karim dama tëdd tëdd ba guddi ñu woon ma ah ñu woon ma lu leer naa ñi lan dama tëdd ba guddi ñu woon ma lu leer naa ne ma mooy jël président barke Cheikhul Khadim wallaay laa si dëgg la tëj bi ñu ko tëj amoon na sama gars yoo xam ne waxoon naa leen. maanaam day yokk ay gratte. Abdou Gueye waxoon naa ko ne ko tëj bii ñu ko tëj a tëj gars yi xamul doon dara. ma ne ko ma tëj ba guddi gént gént Karim ca kaw. ma gis ma gis Abdoulaye toog suuf. ma ñëw naa ne ana Karim ñu ne ma mi kaw de. man de man ab nag bàyyi ma suuf bu on lay la si boobu laa xam ne président bi moo koy barki Seex ma ko jël yàlla bu ma gis sëñ tubaab yi te dara yàgg na jël lu ma. déedéet. asamaan ak suuf moo ma tiim. on mhm. lay laaj bu jël président bi yàlla bu ma tëjee ak sëriñ tubaab. est-ce que. barki Fatou Moussa. ay lay